jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 euh, seen émission pencum réew mi mbokk yi ñu dellu am mbégte àndaat si ak yéen euh, samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di si ànd ak Abdou moom Seck du Diawo Diallo moo nekk ci wàllu technique bi mbokki nag tey ñoo ngi dalal El Hadji Malick laat Latmingué Euh, moom ay jamono nekkoon na fi euh, député euh, libéral jamono ji ñuy waxe ak yéen conseil spécial président Macky Sall la ci haut conseil des collectivités territoriales mu jiite tamit mouvement bi nga xam ne moom moo tudd suqali siin saalum ànd ak Sénégal moom la ñu invité tey ci rajo réew mi FM ci seen émission pencum réew mi ñu fa yéene waxtaanee lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum actualité. Euh, danañu waxtaanee émigration clandestine bi nga xamante ni gis nañ ne bëri na lool ci Sénégal euh, danañu daal di waxtaanee tamit lu jëm ci wàllum euh, remaniement ministériel bi nga xamante ni président Macky Sall def na ko ay bés yi ñu génn ak coow li nga xamante ni moo ci am danañu ko daal di waxtaanee ak gisinam. danañu daal di waxtaanee tamit lu jëm ci wàllum agriculture wàllum mbay mi ndax moom tim bokk na si ñi nga xamante ni tey day bay ca diwaanu Sine Saloum. Euh, ñoo ngi lay nuyu El Hadji Malick Gueye euh, Laan am mbégte bu baax a baax dal la ci euh, réew mi FM. ñu leen di fay bu baax yéen waa réew mi FM di am kontante ci seen rajo bi bu baax a baax ak seen organe bi ni ngeen ko taxawale ñu organe boo xam ne li waral organe de presse taxaw moom su yónnee ci rôle bu bari bi ci njëkk organe de presse maanaam presse bi ñu ko laajee benn wéykatu arab def na presse lumière la lumière boobu nag nga xam ne moom lu la tudd euh, yeneen kii niital nit ñi ñu ngi jaar ci yoon wi ba xàmmee pakk yi ak pax yi euh, li ma bëgg wax rek mooy réew mi FM rajo boo xam ne rajo bu am solo la ci Sénégal rajo boo xam ne mu ngi gindi askan bi bon ñu siyaare leen nuyu leen ñaan leen yàlla yokk leen dafa leen jàmm bu baax jërëjëf euh, El Hadji euh, Malick Gueye euh, Laat Mbengue yow nga nekk ancien député libéral jamono ji nga nekk conseil spécial bu président ak Sall ci au conseil des collectivités territoriales nga jiite mouvement suqali Sine Saloum ànd ak Sénégal. Euh, fi ñuy njëkkee ci émission bi mooy actualité bi gën a fës mooy émigration clandestine bi ñu gis na ay ndaw ak ay mag yu bari ñoo ngi jël gaal gi euh, di jaar ci ndox mi ngir dem ca bitim réew bëri na si tamit ñoo xamante ni euh, ñoo ngi ci faatu yow lan moo ci sa xalaat en tant que sénégalais en tant que père de famille. waaw ñu ngi jaalee ñu ngi jaalee mbooleem koo xam ne mm, am nga ci. koo xam ne décédé na ci loolu euh, di ñaanal ñi nga xam ne génn nañ ci àddina yëpp yàlla xar leen aljana di ñaanal seen waajur yi yaakaar bi ñu amoon yenn yàlla def yaakaar boobu ci seen kanam ëllëg di wax rek ne loolu moom mbir la moo xam ne mbir mu daw yaram la sax mbir mu métti la ci xolu Sénégal yi yëpp waaye mbir mu métti la ci xolu président ndax euh, euh, président Macky dafa nekk nit boo xam ne léppam yërmande la président ki dafa nekk nit boo xam ne léppam ay tolérance ni la boo xam ne daal ci gàttal ni ñu ko mën a tuddee muxtaar la bon bu yàlla defee lu mel nii accident bi am ci biir euh, nguuram man xam naa ne ku dem ci xolam xol ba neexul ndax xam naa ne amul yéene boobu ci ndaw yi bëgg-bëgg bi mu am ci ndaw yi rek gis nga conseil ministre passé dégg nga li nga kuréel bi nga xam ne taxawal na ko fa renk rek pour gën a jàppale ndaw yi euh, ñu gën a am ñu gën a am yaakaar ci seen réew waaye it ñu gën a taxaw pour mën a jàppale seen i wayjur seen réew waaye ñu gën a taxaw pour liggéey seen réew te yem ci seen réew. amaa nag li nga xam ne am na ba pare euh, loolu maa ngi ñaan rek ndaw yi ñu xam ne euh, nañ jéem a di mbëkk ci biir réew mi bañ di def mbëkk feneen loolu bokkul ci xalaat bi nga xam ne euh, xalaat la bu nit ñi ñemee wala xalaat la bu nit war a ñemee. dëgg la addina nag ma fi na ànd coon yi bëri na ci àddina du Sénégal rek la yem monde entier la foo dem rek gis nga tey Amérique boo demee ay millions ay millions de personnes ñu ngi taxawal pour ñàkk liggéey feneen noonu feneen noonu feneen noonu waaye su ko defee ñu bàyyi suñu xel rek ñun ñëpp ne li nga xam ne ñu ñëpp moom la ñu bokk muy muy Sénégal euh, dëgg la métti na lool métti na lool bu ñu sañoon tey wala bu président de la République sañoon tey euh, du benn ndaw du am lu ko naqadi waaye nag day àddina moom mooy nekk loo xam ne euh, mooy doxee lu mel noonu waaye xanaa ma ñaax leen ñu gën a toog ci réew mi gën a gën a bàyyi seen xel ci li nga xam ne mooy awniru réew mi ëllëg te mooy ndaw yi. di ñaan nit état bi mu gën a yokk jéegoom pour taxawu leen taxawaay ba gën a rafet ba loolu mën a fatt ba loolu kenn du ko dégg te am na yaakaar ne président jéego yu mu tëral yaakaar naa ne incha allah loolu dina wàññeeku bu baax incha allah. Euh, El Hadj Malick Gueye euh, gis nañ ñu bari faatu nañ ci biir géej gi. Mm. Euh, président Macky Sall bu paasee lim ci bind ci compte Twitter mm. defu ci benn déclaration officielle discours officiel jàkkaarloo ak askanu Sénégal yi mm. defugu ko beneen ñu baree baree bari ñoo dee ci géej gi ñenn ñu jàppoon ne bu doon benn fan sax danañu ko amal ab dëj boo xamante ni état bu Sénégal moo koy organisé loolu lépp sénégalais gisuñu ko euh, ban lan moo lan mooy sa njàngat ci ci taxawaayu président Macky Sall. waaw mun naam gisaguñu ko comme li nga njëkk a wax rek gisaguñu ko xam nga loo xam ne ñu ngi ci études yi pareegul ñu ngi ci yoon wi ñu ngi ciy dox président ki xalaat li jigéen génne ay mesures euh, yaakaar naa daal lépp loo xam ne lu war a am la rek. président de bi ganaar sax bu dee ci réew mi métti na ko rawatina nit euh, moo tax ma yaakaar ne rek incha allah. Euh, lan mooy na ko. Euh, li wane métti na ko may gis nga semaine passée gis nga conseil municipal passé gis nga mesures yi mu jël ci loolu loolu moo loolu jël def ko précaution am loolu jël def ko ci kanamam def ko ci gannaawam. d'accord mais mais <laughs> El Hadj Malick. Mm-hmm. El Hadj Malick Gueye président Macky mm-hmm. bu ko mbir mi méttee naam jàpp naa ne man mi sax métti na ko. mais am na loo xamante ni moo koy firnde wala mooy dalal xelu sénégalais yi ñoo ngi doon xaar deuil national est-ce que yow yaa ngi xaar deuil national. waaw xam nga lépp loo xam ne lu lu war a am la rek président mu am na yaakaar ne euh, xanaa dañ koy ñaax rek pour mu gën cee gaaw waaye am naa xam naa ne mu ngi ci xelam. moo tax moo tax moo tax xam nga wolof ñaar dafa wax ne paaka kenn du ko jiitu ci mbatam. Mm-hmm. xam nga état nag euh, état la jiite jiitewul kër jiitewul néeg jiitewul dëkk réew la jiite réew nag boo ko jiitee naa am li nga bëgg a def. Euh, euh, te te waxoo ko wala mun naa am li nga xam ne moom nga moom nga nisee sa xel ak sa xalaat yegg ko ca mun naa buñ duñ la bëgg jiitu ci lu mel noonu waaye xam naa ne rek lépp loo xam ne warugar la ci loolu boo gisee euh, alxames passé àllarba passé ci conseil ministre bi mesures yi mu jël pour taxawal li nga xam ne pour ñu gën a baral liggéey bi nga xam ne moo jëm ci ndaw yi ak jëm leen a jàppale yaakaar naa ne kuy xalaat lu mel noonu sa xel du bay du bàyyi leneen. waaw d'accord mais El Hadj Malick Gueye Laat Mbengue il faut tamit ñu d'accord ci benn benn affaire euh, ndax tey xam nga ne président Macky Sall taxawal na ministère de l'emploi ministre Dame Diop jiite ko taxawal na ANPEJ ANPEJ mu jëm ci wàllum promotion emploi ndaw ñi président Macky Sall taxawal na DER délégation de l'entrepreneuriat rapide loolu lépp ay milliards et milliards la mais loolu ñoo ñu kuréel yooyu président Macky Sall sant leen ngir ñu lijjanti euh, xëyum ndaw ñi est-ce que du kuréel yooyu ñoo lajj ba ndaw yi di dem ci géej gi ndaxte kuréel yooyu li ñu leen sant bu ñu ko jëfee woon muy DER muy ANPEJ muy ministère de l'emploi est-ce que président Macky Sall dina taxawal bërki démb benn conseil national de l'insertion et de l'emploi ndax bu taxawee conseil national de l'insertion et de l'emploi mooy tekki que ne ministère de l'emploi la mu war a def wala tey DER bi ñam war a financer xaalis bi wala ANPEJ la mu war def defu ko est-ce que tey du caage ni kuréel yooyu li ñu leen dénkoon dañu seelaj ji waaw boo xoolee yaa waxal si bopp ne euh, soo gisee mu taxawalaat beneen kuréel bu bees euh, loolu rek li muy wane rek mooy xelam a ngi ci euh, fi xel yi ñëpp nekk mooy li naqadi ñëpp naqadi na ko te ñu dénk réew mi yow yaa wax kuréel yooyu yëpp nga xam ne créé ne ko lu jiitu lii di am. bon xam nga kooku. ki créé jeex na bon nga xam ne. mais mais ok waaye nag wala alhamdulilah ma abba wala qadir yàlla mooy jàmm bi day bëgg rek sabab lu waaye yàlla mooy dogal bu ñu seetee ne yu mel noonu parce que accident yu mel noonu bëri na yàgg na yàgg na am ci àddina ndax boo xoolee euh, ci euh, comment dirais-je euh, bateau de Joola moo gënoon a garaw yi yëpp moo gënoon garaw yi yëpp te yàllaa ko dogaloon te terewul mu am waaye su ko defee rek jaam bi moom li nga xam ne moom moom mooy waru garam toujours mu di ko def mooy nag comme ni ma la waxoon rek mu sabab lu di jéem di bëgg wax nga sa bopp kuréel yi nga xam ne tëral na ko pour baare lu mel nii bañ am yaa ko waxal sa bopp bon yooyu yëpp nag su ko defee bon nga war a xam ne waa jooju kat ki def lu mel noonu xam nga ne kii am na am na am na am na yéene mhm. am na taxawaay am na bëgg-bëgg amaa nag wàllu lajji nag amaa nag wàllu wàllu lajji comme ni ma la waxoon rek mun naa am doxaliin bi doxaliin bi maanaam euh, ab kër gi sa boo ko buggee tabax ah du diire ñetti fan du diire ñetti fan pour pour ñu mën cee toog tey ba di ci waxtaanee diir na ab temps mën na am temps bi nga xam ne moom lay diiree du signifie wul dara lu dul mbaaxu mbaaxu tabax bi ba ëllëg ñu mën cee toog di waxtaan mën na am yoon boobu it encore ci la nekk moo tax ma yaakaar ne daal di ma gis daal te te te constaté ci ci côté président ak côté gouvernement bi seen yéene moom du du li am bi ci topp mooy euh, comme gannaaw boo xamee sa bopp ne kuréel yi mu tëral yëpp defoon na ko lu jiitu li yëpp di am bon moom bu suñoon lii du am ndax jéem na ko xeex ci loolu waaye comme li ma wax rek yéen nekk accident boo xam ne rek accident lay am euh, mu yem fii te bu mu amati euh, di di ñaan nag képp koo xam ne président di nga ne lu mel nii yow itam nga jéem a fexe Niger bi mu am ak yéen bi mu am yow itam nga am lu ëpp lu nga am lu ëpp lu loolu ndax Sénégal jëm kanam. d'accord mais euh, El Hadj Laat Mbengue Euh, yow nga nekk conseil spécial président Macky Sall ci au conseil des collectivités territoriales laaj bii ma la laaj dama ci dama ci reveniraat ndax euh, boo xoolee mm-hmm. euh, conseil national de l'insertion mm-hmm. et de l'emploi des jeunes mm-hmm. bi président Macky Sall mébéta taxawal ci conseil des ministres bii ñu jàll lim ko sant pour mu def ko loolu la santoon ministère de l' emploi loolu la santoon ANPEJ pour promotion emploi ndaw ñi loolu la santoon DER jox ko plus de trente milliards pour mu financé si ndaw ñi ñetti kuréel yooyu président Macky Sall teg na ko avant mbas di am kon président Macky Sall yàgg naa mébét ngir ndaw ñi am liggéey loolu kenn du ko werante mais kon kuréel yooyu li ñu leen sant bu ñu ko matale woon mais du jar président Macky Sall di taxawal geneen kuréel. loolu moo tax ay changement di gouvernement di am lu mel ni lu mu waral gouvernement di parce que doomu adama bi euh, soo gisee gouvernement léegi mu taxawal génnee kii dugal kii jël kii dugal kii du dara mooy dafay su gisee ne lii kat euh, lu mu buggoon la ak lu mu naroon la ak lu mu yéenewoon la gis na ne doxewul na mu ko war a doxale loolu moo tax gouvernement lii di ay changement changement loolu moo koy jur du dara nag maanaam defaraat rek la defaraat rek la bu bugg mu bugg mu gën a baax bugg it encore li am tey bañ am suba li am solo daal comme que mu am na yéene bi te nangu nañ ko gis nga ne teg na ay solon yoo xam ne solon yu tegoon na ko ngir doon invité lu mel nii bon nga war a xam ne kooku moom xelam ak xalaatam ak yéenaam mu ci Sénégal bi ko fal mu ci li tax Sénégal bi fal ko amaa nag li nga xam ne moom maanaam li nga xam ne moo am tey comme nga xam ne mbënd mi ak ni mu taxawee ak ñi nga xam ne ñoom la ñoom la dénkoon lu mel noonu seen seen loxo mun naa am euh, na mu war na gaawee des na wala mun naa am am nay am nay am nay am yoo xam ne war nañ ko ci gën a mën a baral te mun a am des na yu mel moo waral conseil des ministres am lu mel moo waral muy mu yeesal lii di yeesal laa lu mel noonu mooy mooy tax muy génnee euh, comme que rek nangu nañ ne am na yéene bi moom président daal bi am na xol bi préparé na ko bañoon na ko amoon na xam nga ne am na expérience am na compétence parce que compétence boo ko amee toujours da ngay préparé loo xam ne ñëwagul yow nangu nga rek préparé na lépp waaye nag malheureusement taxut it li ndogal bi nga xam ne yàlla indi na ko mu am waaye lu ci lu ci nekk rek mooy ñu ñu comme rek ni ko ni ko ni ko ni ko wéykat bi waxee fas course lu mu ñu bàyyi ko yar loolu moo waral muy muy jéemaat di fexe yeneen yoon yoo xam ne pour facilitation gën a yomb gën a gaaw. d' accord euh, El Hadj Malick euh, d' accord nañ ci li nga wax mais xam nga tamit euh, ñun état lañ état lañ nekk. ci état la ñuy wax xam nga yéene loolu. beneen affaire la tey. par exemple tey soxna si nga xamante ni xëy jox nga ko dépense. am na yéene am na yéene togg mais xaaroo ci moom mu dem marché kese danga xaar mu dem marché xaar ko mu ñëw si kër gi xaar ko mu togg xaar ko mu yàq xaar ko mu séddale mais président Macky Sall dañ ko jox ay milliards mhm. mu teg benn programme boo xamante ni pour ndaw ñi am liggéey mais li nga xam ne moom la ñu remarqué ci Sénégal mhm. mooy bari na ndaw yoo xamante ni am na ñu métier moo ay amuñu liggéey am nañu formation boo xamante ne amuñu liggéey te Sénégal bari na fi ay diplômés yoo xamante ni ñoo ngi chômé amuñu lu ñu liggéey euh, ba tey boo xoolee ñu ndaw ñu baree bari nee nañu dem nañ ba dëkk bi réew mi dafa metti euh, ñoo ngi doon xaar tamit ci yéen di xaar ci président Macky Sall di xaar ci ñi ñu dénk réew mi ngir ñu indiwaat espoir pour ndaw ñi am espoir merci xam nga loolu lépp rek comme comme ni ñu ko waxee rek mu ngi tënku ci doomu bi xam nga li ñu li ñu njëkk a wax mooy yéene yéene moo moo ëpp jëf yéene dafa am solo ci nit nit bu xasee am yéene bu yéene rek euh, euh, am naa yaakaar ne ku mel noonu boo ko gungee jàppale ko dina mën a dem donc yéene ki moom yéene dafa fort euh, donc am na yéene bi te taxaw na taxawaay bi yow gis nga ko waxoo ci côté am ñàkk bëggam wala ñàkk yéene am wala ñàkk banam wala wala tëleem waaye da ne. gisuñu euh, résultat am maanaam résultat résultat bi ni ñu ko war a mën a am gisuñu lépp. parce que 100% moom kenn amu ko kenn amu ko fenn buñ ko gisut fii maanaam ñu gis ko feneen waaye lu mel noonu rek toujours ki lay delluwaat bari ma njëkkoon a loolu moo tax état di sensé ay. ay ay ay méthodam loolu moo tax muy taxawalaat toujours ay ay kuréelam loolu tax muy yeesalaat ay banqaasam du dara bugg rek nit ñi Euh, am espoir euh, seen espoir bu ñu amoon ba fal ko espoir boobu gën a continuer gën a gën a sax gën a nekk en tout cas li ma li ma ci li ma ci tëjee loolu rek mooy ñu ñaan na ko yàlla daal comme que am na bëgg-bëgg te nangu nañ ko am na yéene te nangu nañ ko am na xam-xam te nangu nañ ko euh, tegoon na ay a bare lu mel nii bañ am bu lu mel nii su amee it ba ñu ñu ba te nangu ne par exemple bañu lu mel nii bu indoon ay organes yoo xam ne pour ñu war a seere yu mel noonu ba ñu jàpp rek ne mun naa am incha allah bu ñu ci yàlla dimbalee ñu ñaanal ko yàlla yàlla may ko wér euh, bëgg mu mën a continuer yàlla may ko xelit ak xalaatam mu ànd ak moom toujours ñu itam ñu jàppale ko nag gunge ko bañ ko fakkatal Euh, jërëjëf euh, El Hadj Malick Guèye euh, Laat Mbengue mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew bi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ginnaaw bi ñu waxee si wàllum immigration clandestine ak ndaw ñi nga xam ne ñooy dem ci géej gi ñu wax ci wàllum wàllum agriculture wàllum mbay mi ndax xam nga ne fii ñu toll nii. wàllum jënd ak njaayum gerte gi commercialisation bi léegi tey mu daal di door ay fan yu néew a néew moom moo ci daal di des coronavirus bi ak jafe-jafe yi mu indi économie Sénégal gis nañ président Macky Sall ci euh, ay ndaje yu bari mu wax ne dafa sukkandiku ci agriculture euh, ngir euh, ngir suqalikuwaat ngir suqali li nga xamante ni mooy suñu mooy suñu économie bi mais nawetu ren bi yow ba dem nga bay ay bay ngi bay ay hectares ñoo ngi xaar li nga xam ne mooy commercialisation bi njënd ak njaayum gerte gi nawetub ren bi sa première jàngat boo ci def. première jàngat bi mu ci def mooy jàngat bi mooy. Euh, sant yàlla d'abord lu tax sant yàlla mooy dafa tombé euh, jamono boo xam ne dafa am jafe-jafe bu daj monde entier waaye yàlla def jafe-jafe boobu euh, yàlla wàcceel ñu ñun ndox moo xam ne macha allah baykat bi ci heure yi mu tolloon tax na taxoon na baykat bi toog këram mëntu dem parce que jamono bi nga xam ne ci lay am jamono boobu couvre-feu yi bëri na ñu bëri dellu ci àll bi bi ñu delloo ci àll bi yàlla def na ndox mi di ñëw ñëpp dem bay loolu moo waral ren macha allah alhamdulilah yaakaar nañ ne li am ren gëñ naa am ci eh, ci ci mbayteef mbayteef bu nit bay rek yàlla may na la ko loolu muy signifié rek mooy njiit bu amee yéene bu rafet ak xol bu rafet toujours yàlla mën na ko mën na ko suturaal yéene bi mu am moom président de a république ak xolam bu rafet bi mu am ci ñi ko jiite loolu tax na yàlla toujours foo xam ne fitnaa ko bugg am rek yàlla mën na ko jàppale eh, wàccee fa loo xam ne day day nekk lu ko dimbale ba bëgg-bëggam ba bala nga xam ne moo doon fitna ba yàlla dindi ko. Euh, mbay mi ren jaar na yoon macha allah ñu ngi ci wàllu njënd ak njaay seetee état bi même état bi dégg dégg naa taxawal na. Euh, euh, prix bi waaye bu ñu gisee ne taxawal na prix bi prix bu bu ñu ko jàppee prix bu tuuti nañ jàppaat ne ci kanam tuuti état bi dafay jëndaat gerte dafay jëlaat gerte suspensionné ko encore joxaat ko baykat bi. moo tax nit ñi war nañu am xalaat yu sori. ren yokk na ci 40 francs. te te waaw ok gannaaw bu ñu yokkee 40 francs ba pare en plus nag ci kanam tuuti mu ñëwaat si dana jëndaat jiw boobu suspension na ko joxaat ko béykat bi. moo tax xool même bu ko état jëndee woon bu ko bu ko bu ko bu bu ñu buggoon état jëndee ko juróom-ñetti fukk sax wala téeméer sax waaye bu ñu fàttee ne bu ñu boole woon ñaar yooyu rek ëpp na njëgu ëpp na 400. Hmm? ëpp ëpp na ëpp sa téeméer par kilo. parce que lu ko waral mooy état bi. heure an heure bu nekk mu ngi situation baykat bi de loolu mooy associé baykat bi jàppale baykat bi ci lépp du ko bayee dara ndeysaan parce que mooy gis ne dëgg la man su ma sañoon ñu jëndee kilo gerte téeméer dërëm parce que loolu mooy li nga xam ne moo arrangé baykat bi te man baykat la loolu mooy li nga xam ne encore moom la ñaanal yàlla baykat bi yàlla ñu dem ba prix gerte dem ba dépassé fi mu toll tey loolu nag man-manu état la ñu ñaan yàlla yokk man-manu état bi ba loxoom gën a gën a macha allah gën a gën a mën a dem ci ñoom bu baax a baax waaye nag bu ñu seetee ne état bi même su ko jëndee yokk ci quarante francs ren waaye bu bu encore ci biir 40 francs yi mu yokk ci prix li nga li nga xam ne moom la ko jëndee woon daal mu yokk ci ren 40 francs nga gisaat ne ci kanam encore dana jëndaat jiw woowu dana jëndaat gerte googu c'est na ko baykat bi maanaam wàññi ko ci loo xam ne beneen beneen taux bu mag encore pour mu gën a mën a bayaat déwén loolu moo lay xamal ne rek eh, maanaam toujours état ba ngi ci côté di ko jàppale di ko dimbale waaye yàlla def ministre bi nga xam ne moom leen day jël ren ci ci mbay mi muy Moussa Baldé muy nekk ministre boo xam ne <coughs> ca dëgg-dëgg yàlla mun naa wax ne li président Wade waxoon ci Macky ne bu doon ut xaal bu neex moom la dajal waaye ragal naa président Macky Sall bu doon ut xaal bu neex bi moom la dajal ci wàllu mbay gis naa ne daal porte bonheur la alhamdulilah bàll miin ci président de la ci ci wàllu mbay mi porte bonheur la ci baykat bi ba àll bi doo dégg kenn ku yëkkati benn kàddu teg ko ci Moussa Baldé muy kàddu gu ñaaw parce que lu ko waral mooy lépp lu président Niger bugg ko rek moom ci lay xëy ci lay gont te fexe na it ba nga xam ne àgg na ci baykat bi àgg na ci baykat bi euh, ba tax na mos naa wax suma maanaam euh, boo gisee wàllu euh, semence bi déggoo ren kenn ku ko jàmbat wàllu engrais déggoo ren kenn ku ko jàmbat wàllu matériel agricole bi déggoo ren kenn ku ko jàmbat man fa ma dëkk mooy presque mu naa ax ne moo yore ci mbay 60 pour cent wala 70 pour cent muy Sine Saloum te Sine Saloum tey boo demee macha allah. dégguma fa ren kuréel yi daan am ci at yee passé kuréel yi daan am di juddu di xeex naan jotuñu jiw gisuñu jiw jiwu yu ñu yor baaxul nit la boo xam ne liñ ko dénk man na ko xam na ko te it encore bugg na victoire président bugg na it béykat bi am jàmm moom Moussa Baldé ku waxal rek sa sa sa bameel loolu constaté naa ko ci moom seede naa ko ci moom ñëpp am nañu accès ci moom ba tawal boo mën a am boo demee mu jéem ci la man d'accord mais loolu naa ko ci euh, moom euh, ne rek béykat bu mu yaakaar ne ministre bi loolu nag suñ ko jàppee gunge ko rek jàppale ko te te bañ a def tooba saxal mbaa ma sulli yaakaar naa ni incha allah Euh, ci at ci kanam tuuti rek Sénégal dina changé comme ni ko président yaakaaree ak ni mu ko bëggee ci wàllu mbay mi ba mu changé réew mi totalement. Euh, d' euh, li nga xamante ni moom mooy prix gerte gi 210 la woon daaw ren yokk nañ ci 40 francs muy 250 sànq li nga wax mooy état bi daf koy jëndee yokk na ci 40 francs da koy jëndee 250 mais su ko jëndee 250 daf koy subventionné waat joxaat ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy baykat yi. waaw mais tey est ce que tey gerte gi ñuy subventionné est ce que gerte googu noonu. ma ngi dem ci baykat yi ndax xam nga ñu bari dañ doon wax ne euh, gerte gi dañ état bi dafa koy subventionné mais eggul ci ñi nga xamante ni ñooy baykat yi léegi yow euh, lan nga ñu mën a jox tek ay takk ak firnde kane tey ministre euh, Moussa Balde jiw wi semence bi ak engrais ji egg na si baykat yi loolu yan xibaar nga ñu si mën a jox ok léegi dama bëgg a yee tey sénégalais bi waxtaan ak sénégalais yi encore waxtaan ak it encore ñi nga xam ne ñoom ñooy déglu wàllu situation mbay dafa am ñaari baykat dafa am baykat boo xam ne dafa téye saagam topp réseaux sociaux yi topp rajo yi topp journal yi kooku toolam bi ci biir saagam bi la nekk ah ak baykat bi nga xam ne politicien la politicien nag boo boo maanaam boo xasee doon te boo àndoo ki nga xam ne moom moo nekk euh, sur le sur le place àndoo président bi euh, su boobaa da ngay nekk noon noonu nag euh, booy fecc ci biir ndox sax biir ndox boo ci feccee <laughs> yow mu ne la pënd ba nga may gaañ xam nga ndox du génn pënd waaye moom noonu bi moom day gis pënd ci yow su boobaa maanaam li ma bëgg wax rek mooy béykat bi nga xam ne béykat la sur le terrain bokkut ak béykat bi nga xam ne politicien la bokkut ak bay béykat bi nga xam ne syndicaliste boo xam ne maanaam saagam la yor di faralu ci mbedd mi di wëndeelu attaque yu ma syndicaliste parce que syndicaliste macha allah ñoom ñëpp ay noble lañ nit ñu baax lañ waaye li ma bëgg wax rek mooy dafa am nit ñoo xam ne li ñuy wax maanaam teguwul ci xam-xam teguwul ci réalité dafa tegu ci leen seen bànneex ak seen bëgg-bëgg dafa tegu ci leen li ñu mën a arranger seen bopp dafa tegu ci leen sacrifier li nga mën a suur yàqal njiitu réew mi liggéeyam mu tilimal ko loolu nag mëntu ñàkk parce que li bépp nga bay togg lépp loo xam ne bépp togg-togg boo bépp takk takk boo xam ne amul sëxër rek li takk dina fay luy tàkk lu ne dina am saxar boobu nag mëntu bañ eh, ci kuy ci kuy togg boo demee tey matt gooy togg nga dindi ko matt gu saxar nga dindi ko sa togg bi li ngay togg du ñor li ngay togg mm, da nga fay matt yëpp parce que amul matt buy tàkkatu du génnee saxar bon loolu li ma bëgg a wax rek mooy noonu moo mëntu ñàkk ci dara doomu aadama bu judd yàlla bindal ne la lu mel noonu nga ànd ak moom fekk bu ngay dee euh, noonu sax ak gën topp na nit ba ci bàmmeelam bon li am solo rek mooy <coughs> nañu nañu xàmmee nañu xam ne Euh, politicien boobu nga xam ne dafa dugg ci biir euh, euh, comment dirais-je dafa dugg ci biir mbay mbay mi ak it politicien bi nga xam ne dafa téye saagam bi nga xam ne moom toolam bi ci saagam bi la nekk moom ci lay béyee ci lay góobee ci saagam bi kooku ñu ràññee ko bokk ak béykat bi nga xam ne dafa nekk sur le terrain amaa man béykat bi nga xam ne moo nekk sur le terrain kooku lay waxal man xam naa ne béykat boobu du ngeen ko dégg rajo du ngeen ko dégg sona amul jotam di ñoom ni ñu koy déggee ñoom itam noonu la ñu koy déggee man dem naa benn bés ci benn penc wàcc fa taxaw waxtaan ak ñoom laaj leen dem ci coopérative yi ndax daaw bi ñu joxe gerte gi euh, département Kaolack dem naa ci neuf collectivités locales yoo xam ne benn bu ki nekk damay dem gaare sama oto wàcc ñëw waxtaan ak nit ñi laaj leen naka seen semence bi nu mel mbaa kontaan ngeen ñu ko gisee ak si ngeen ñëpp alhamdulilah semence bi baax na ñëw na ci heure am surtout heure bi mu ñëw surtout heure yi mu nga xam ne ci lay ñëw xam nga ki nga xam ne dafa war a bay nga da nga ko dafa euh, jiwu gerte yëpp du jiwu jiw nag ci biir gerte lay génnee waaye taxul gerte yëpp nag nekk jiw <coughs> loolu baykat bi moo ko xam heure bi nga xam ne ci la war a jot bay jiw bi semence bi heure boobu dafa am solo lool ci baykat bi waaye boo xaaree comme na daan am indi at yee Euh, nga xam ne bala ngay jot jiw wi yàlla gi dafay taw ba oto yóbbu jiw yi ci àll bi dañuy ngiroo duñu mën a yegg fañ jëm loolu lépp alhamdulilah bala bi Moussa Baldé toogee moom loolu moom set na wecc fexe ba nga xam ne béykat bi mu ngi jot jiwum bi ci temps fexe ba nga xam ne euh, maanaam ki ko war a jot mu ngi koy jot matériel agricole bi macha allah waxoon naa ci gannaaw ne euh, temps yi passé su gisee coowal suuf bari ci àll bi li ci ëpp matériel agricole bi nga xam ne moom la président de la defar Euh, moom président de la république indi matériel agricol boobu mooy ban mooy machine bi nga xam ne moom la ñuy jiyee gerte bi dafa demoon ba jeex amatul machine bi nga xam ne moom mooy usine bi nga xam ne sus comment moom doon liggéey amatu doon président de la ci nguuram la fexe ba yooyu yëpp latte tey ci àll bi bëri lool te loolu bokkoon na ci li manqué ba nga xam ne bu yàlla ji bëggoon a taw boo demee ci mbaar yi nga xam ne ñooy ñooy defar machine yi ci àll bi wala ci euh, sura métallique yi da ngay gis ne dañuy xelli pion yi nga xam ne ñoo war a génnee gerte gi ci biir machine bi parce que dafa demoon bay ràpp ba jeex waaye président indi ci ay état neuf yoo xam ne kenn mënu la ko wax loolu bokk na ci li nga xam ne facilité na béykat bi mën a bay lu yaatu facilité na baykat bi pour mu am jàmm facilité béykat bi pour mu mën a dox loolu tey boo gisee ne macha allah président de bi def na ci li mu ci war a def waaye jaar la ko ci loxo bu set boo xam ne loolu rek moo ma intéressé man ki mu ko jaar rek moo ma intéressé muy Moussa Baldé dama ko constaté dama ko seet dama ko segg dama ko taaraar ma gis ne na maanaam wax ko lu ko neex te du dëgg mooy mooy may rey suma bopp man béykat laa su may waxee yow nii béy naa leen cinquante quelques hectares ah ok euh, bon ba euh, maanaam wax ko lu ko neex te dëgg mu ngi mel ni maa rey sumay bokk ndax man suma suma cosaan lépp ndi ba mbay la bon wa wax wax li nga xam ne nag mooy jëriñ suma suma mbokk mi ak wax li nga xam ne loolu ëllëg mooy jëriñ euh, suma jëmm ji man miy wax te ci ñoom laa bokk te ñooy sumay mbokk sa mbokk tuddul sa mbokk sa bopp la tudd ñooy sumay ñooy sumay bàyyi ñooy sumay ndey man maay seen doom te sa doom tudd sa doom ndax du moom la bon Moussa Balde waruma jaral lu mel noonu waaye nag isa jaal xaq wa saaqal baatilu fa annal baatilu kaana zahuqa qulil xaq walaw kaana murra maanaam dëgg nit ku nekk da ko war a wax heure bu nekk dëgg mooy li nga xam ne mooy awalu mooy aaxiru mooy zaahiru mooy baatinu dëgg bon dëgg boobu nag ma xam ne moom la ñuy wax nii tey mooy li nga xam ne moom lañ constaté ñun euh, nga xam ne jël suñu bàmmeel jaarale ko ak ak li ñu gis ah laa taquluna ma laysa laka bihi ilmun alquran wax na ko bu leen wax li nga xam ne amu leen xam-xamam def nga dawaar nag na lay ngi ñi xamul fasalu al zikri in kuntum laa ta'lamun nit dafa war a laaj ñi xam comme que xamu leen donc na ñun nga xam ne ñoo nekk le terrain boo ñu laajee ñu jox la données yi xam ne moo moo mooy li dëgg su boobaa ah, maanaam euh, béykat bi dafay am jàmm euh, état bi am jàmm ministère bi am jàmm heure su ngeen ba gis ne baldekat jaar na ci yoon boo xam ne bokkul ak yoon bi ñu bëgg suba boobaa ñun ñooy taxawaat bañ ko comme ni ko daan bañee rek. kon yow da nga jàpp ne euh, ministre euh, professeur Moussa Baldé euh, jéego yi mu def. Mm. ci séddale semence bi. Mm. ak li nga xam ne mooy matériel agricole bi. Mm. taxawaay boobu da nga jàpp ne moo tax ñu reconduire ko ci gouvernement bi ñu tegaat. reconduire moom lu tax ñu def ko ko xam naa ne résultat mooy tax ñu gën a reconduire nit résultat parce que nit ki mën na ko lebal fayul la nga da ko lebalaat ah ma yaakaar ne. Euh, Moussa Baldé bu ne maanaam euh, xam nga président de la moo gën a xam Sénégal yi ñëpp moo gën a xam nit ñi ñëpp ndax moo yore bépp information information yëpp moo leen seere moo leen yore ku wax ne président Macky Sall ni ko trompé da ngay nax sa bopp lu tax ngay nax sa bopp mooy xanaa kay mu xam ba ca waaye trompé état moom kay mënu ko parce que état mooy ki nga xam ne yàlla dafa xàcc ci nguuram jox ko ah ah tuutil ko man tasa mooy ki nga xam ne mooy mooy waaxidul qahaar kooku nag boo nee dama koy nax mu ngi mel yaa ngi nax sa bopp président daal bi di lépp lu mu def lu ne rek dafa am lu tax mu def ko ku mu wàccee dafa am lu tax mu wàccee la ku mu fal dafa am lu tax mu fal la en tout cas état équipe la état équipe la équipe nag moom kenn ku ci nekk da ngay da ngay nekk attaquant ki nekk góol ngir mun a dajaloo def équipe bu baax bit mën a am bon kooku nga xam ne nag moom mooy <coughs> moom mooy moom mooy arbitre bi moom mooy xàmmee maanaam ki nga xam ne moo war a changé ak ñu wartu changé ah arbitre boobu nag mooy président d'arbitre bu moom xam na xàmmee na ràññee na euh, li muy xam sa euh, man du ma ko xam yow doo ko xam ah fu mu ne nii fi ñu toog nii di wax yow man leer mun naa mun naa la wax ne la dina yëg parce que lan la mooy état mooy dundee lu mel noonu ah? état li ñu bindee amul ki soxla état li nekk ci diggante ñaari mbind yi lay dundee. bon kooku ki ko ki mënu ko réer. jërëjëf euh, El Hadj Malick Guèye Lane Bengue euh, ñu fàttali ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM moom ancien député liberal la jamono ji mu nekk conseil spécial président Macky Sall ci o conseil des collectivités territoriales mu jiite mouvement Suqali saalum ànd ak euh, Sénégal moom la ñu invité tey ci samedi ji ci seen émission pencum réew mi ñu doon waxtaanee lu jëm ci wàllum agriculture ak tolluwaay bi bala ñuy jàll benn laaj kese moo ñu des ci wàllum agriculture su ko defee ñu jàll ci wàllum wàllum politique président Macky Sall euh, dama ko dégg mu ne Sénégal ak jafe-jafe yi nga xamante ni am na ko ci euh, suñu taux de croissance bi ci wàllum économie euh, Sénégal état bi dafay bëgg sukkandiku ci wàllum agriculture ngir mën a ngir mën a dabuwaat li nga xamante ni Sénégal ñàkk na ko ci jamonoy si mbas mi ndax jàpp nga ne yow agriculture Sénégal su dee yokkuñu jumtukaay yi ndax Sénégal mën naa sukkandiku ci agriculture ngir développer. waaw xam nga yokk moom toujours warugar la yokk moom toujours mooy defaraat warugar la ci loo bugg mu dox loo bugg mu naat loo bëgg mu baax gëm naa ne daal li nga xam ne gëm naa ko te xam ko te nangu ko nga xam ne nit la mu gëm rek moo ko mën a jëriñ li ma gëm nag mooy président de la République daal feeg mu ngi déglu ku mel ni Moussa Baldé am xam-xam set yiwee jub am fulla am fayda maanaam li waral nit war a mën a nekk njiit li waral nit war a mën a jiite li waral nit war a mën a doxal feek président de la république mu ngi koy maanaam mu ngi koy tànn di ko dénkee noonu ay mbir mu ne su boobaa fu nekk dana fa jëlee résultat même du ci wàllu mbay rek waaye daal li bon daal ci ndénkaane mooy sama xarit sama xaritu démb sama mintaw démb non man dama koy ñaan toujours mu pratiquer ci li ko Sénégal yi dénk loo am qu'il faut à la place qu'il euh, ñu wax ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllum euh, wàllum politique. Euh, mouvement Suxali seen Saalum euh, ak euh, ak Sénégal ndax xam nga fan yi wàllum politique bi ak Idrissa Seck mi dugg ci gouvernement bi ak ñoom Omar Sarr danañu si daal di danañu si daal di waxtaan léegi président Macky Sall bi mu defee remaniement ministériel gis nañ ne génne na ay Amadou Ba génne Makhtar Cissé génne Aly Ngouille Ndiaye génne maître Omar Youm jële Aminata Touré ci au conseil économique environnemental ñooñu noonu ndax génn bi leen génne ci gouvernement bi ndax lu la bett la. Ah, wuruma bett parce que lu tax wuruma bett mooy euh, président de bi lim xam ba génne leen moom rek moo ko xam. ma dellusiwaat ci baat bi ma njëkk a wax euh, xam nga euh, ñoom bi ñu leen di nommé kenn ku nekk. booba ñu ngi bàyyi quinze millions sénégalais yi te di ñu tànnale ci yow nommé la ah te bañ lay nommé it place ba am na ku fa béyekoon nga toog fa waaye bon bu mu la bett pour nga war fa béyekoo parce que àdduna mooy dundee noonu. Hmm. àdduna mooy dundee noonu loo xam ne juddoo indiwaale ko. moom moo ko ah euh, sandu sa sant bi ah ah ñu diwut yow sax ah du doo moom euh, moom du yow mbir la moo xam ne rek yàllaa ko dogal na nit gëm yàlla xam nga gëm yàlla yomb na waaye gëm dogal moo jafee ah bon comme ni ko yëkkat bi waxee an kula ma waqan aw yaqon al insani bi umurillah biradatihi wa taqdirihi li salik seen qabla waqonihi lépp lu ñëw ci doomu aadama bi jiitu na juddum maanaam kenn du désavouer sa destin loolu laa bëgg a wax man li mu bëgg wax rek mooy euh, ministre bi nga xam ne dañ ko dañ ko dindi tey tam nekkoon ci euh, aux fonctions bañ koy dindi am na ku ko dindee mu toog fa moom moom suñ ko dindee am na keneen ko war a ñëw ci place am ba noonu la réew di doxee noonu la àddina doxee wuy ko taara bi léegi na ko nee na al yawmu laka gadan alayya nee na tey yow la rek suba sa morom bon àddina noonu lay dundi amaana boo gëmee dogal doo sukki kenn waaye nag war na ci warugar ak ngërëm ma sant nag bu baax bu baax bu baax Mohamed Boun Abdoulaye Dione Mohamed Boun Abdoulaye Dione maa ngi koy gërëm gër mande lu amul àpp Sénégal yépp ñu ngi koy gërëm ku mel ni moom Sénégal yi kontaan nañ ci moom ku mel ni Amadou Ba Sénégal kontaan nañ ci moom ci réaction parce que ñu ay nit lañ ku mel ni Aliou Ngouille Ndiaye kontaan naa ci moom ah démb rek naa ko téléphone di ko félicité ne ko ma ngi lay gën a encouragé démb rek jot naa ko di ko encouragé bu baax parce que doomu aadama moo mel noonu président kenn ku nekk ñoom Omar noonu Omar macha allah xam ne na xaritu président Macky Sall ku nekk xam ne ku nekk xam ne président ko mën xaritam la. Euh, Aminata Touré. Euh, Aminata Touré moom li may wax ci moom du bari parce que moom dafa gërëmul yàlla gërëmul yonent bi dama ko tënkee nag ci xam-xam. moo ne yón euh, alors yonent bi moo ñu wax ne man laa yaskurullah laa yaskuru naas ku santul nit ñi doo sant yàlla te moom santul yàlla santul yonent bi ndax dafa war na sant bon ki nga xam ne moo tax ñu xam ko ki nga xam ne en mille 2000 2002 avant 2000 comment dirais-je 2012 benn Sénégalais xamatoon Mimi Touré. diggante 2012 ak léegi nit jël ci nguuram jox la ci teraanga gu toll ni ki ko ci defal ay ministre ah envoyé euh, spécial du président lu euh, premier ministre lu nekk ci àddina kooku dëggal ko ci nguuram ba xëy jox la boîte boo xam ne yaay troisième homme d'état amoo la dara ci àddina nga xëy ba génn ci boîte boobu di gërëm ñëpp mën na ko tudd turam mën na ko sant kooku nit ku mel noonu du exemplaire xoolal kam fa kam xoolal ki nga xam ne moo fa nekkoon di Aminata Tall moom fa jëlee kenn mësul dégg kàddum jigéen référence ni Aminata Tall moomu la lay mel kooku la Sénégal yi di xaar jigéen yu mel noonu la Sénégal yi bëgg jigéen yu mel noonu la Sénégal yi tàmm nit yu mel noonu courage ñoo ñu am courage la Sénégal yi bëgg waaye nit boo xam ne yow ah euh, daj yi ak yàq ah euh, bépp jaar-jaaram bu ne moom dafa bëggoon a këf Sénégal dafa bëggoon a euh, maanaam yàqal Sénégal ci indirect dafa bëggoon a yàqal président ci indirect moo tax ma ne même même li nga xam ne sax moom moo nekk ci moom nii tey li nga xam ne moom fa lañ ko jëlee nii maa ngi ñaan président de la République ne nañ ko seetaat bu baax. audité nañ ko pourquoi ko audité parce que lu tax muy fëri fëri di wax lan la lan la aj bay ragal ku teen lan la aj am na lu mu aj lan la aj ba muy ragal ku teen ah maa ngi euh, parce que waxam ji bëri yëpp dafa am lu ko undu parce que nañu seet boîte bi ndax boîte bi hypothéqué ko ci banque yi jël ci ay xaalis bu dul jeex ah ba lu tax mën nañu seet ci ñi nga xam ne yoofu fi doon liggéey ndax dafa leen ay antidété dafa leen ay contrat indéterminé yoo xam ne pour pour pour si sarse boîte bi nga xam ne boîte a dem lu nekk ci àddina xelam ak xalaatam moom xam naa ne mën na lu ëpp loolu waxuma ne nag moo ko def waxuma ne da koo def it waaye wax naa ne am na man waxam ci boppam li muy undu mooy ku def dara am na lu mu ragal ci boppam moo tax muy fëri fëri di tëri tëri di jël ay audio di ko sànni ci mbedd mi di di sànni ay trac président de la république président de la république maa ngi koy xamal ne ko ñun ñu ngi koy xamal ne ko en tant que président du moment suqali Souleymane ak Sénégal euh, buñ ne Mimi Touré baasam Kaolack bu kenn tudd Kaolack Mimi Touré baasam ba muy nekk premier ministre Euh, Grand Yoff la woon waa Grand Yoff jël ay yete ki moolu ki birig génnee ko Grand Yoff mu daw ñëw Kaolack bi mu ñëwee Kaolack man dem li ma yaakaaroon mooy def na erreur nañ ko may sens pour mu rectifier waat nañ ko may sens pour mu rectifier waat man maa ko dalaloon Kaolack bërki démb rek am na koo xam ne moom la amoon tey Kaolack muy Moussa Fall nga xam ne moom la àndatoon Kaolack nekk ak moom 24 heures sur 24 heures Moussa Fall boobu bërki démb bi mu gisee ne femme bi yàqal président moo ko tax a jóg Moussa Fall Aprodel dafa bañ woote réunion publiquement ci digg Kaolack ne moom amatul soxla ci moom amatul dara lum liyee ak moom moom li ko taxoon a jóg mooy ànd ak président jàppalante président gën a reste pour jàppale président. bon bu nit bu mel ñu ngi gërëm euh, Moussa Mpoye ma gërëm Moussa euh, kii comment dirais ma gërëm Moussa bu baax ci honnêteté boobu mu def ak courage mu def côté le président de la République di xamal ko ku mel ni Moussa maa ngi koy ñaan sax na ko gën a bàyyi xel bu baax ci Kaolack parce que nit la boo xam ne dara am na mbooloo. borom mbooloo la te it encore nit la boo xam ne am na yéene pour jàppale président am na yéene pour jàppale Saloum te mu nekk doomu Sine Saloum authentique. mais Aminata Touré euh, lan nga jàpp ne moom la moom la ban problème nga ne moom la am euh, ak Macky Sall su dee kese ku ne am na sañ-sañ am ay ambition. Mhm. su dee ambition tax président Macky Sall dàq ko est-ce que yow loolu jàpp nga ne lu normal la. waaye nag gis nga yàlla lim tëlee Macky Sall mënu ko yàlla ko yàlla moo ne la in shakartum la azidannakum mu tekki ne wala in kafartum inna azabi la shadid nee na ba ma sant bu ma la defalee nga sant ma man man ma dolli la waaye su ma la defalee nga nga xarab ma man ma mbugal la loolu alxuraan wax loolu yàlla wax bu yàlla lim tëlle nag Macky Sall mu ko euh, président Macky Sall bu mu ambition am ambition ambition ku nekk na koo am. a dee. mais ñun ah? liñ gis mais ñun liñ gis. mais liñ gis liñ gis ak liñ dimb dana tax dimb naqadi. mutu nu dimb. xam nga xam nga dimbam ah. déet mutinu dimb dina tax di mën a xadi su nekkee def ko buggit na ko defee ci yoonu rafet ah. Idriss Seck même jàpp di ko naan dégg naa ci benn audio mu wax naan xaw ma Idriss Seck jomb dafa gëj a xam la liggéey par ordinateur la Idriss Seck la mi mu turé Idriss Seck njëkkoo nekk ministre njëkkoo nekk premier ministre njëkkoo nekk responsable ci réew mi Idriss Seck nekk euh, matière euh, jël numéro deux deux fois ci Sénégal ah kooku nekk homme boo xam ne président bi gis ne kii njëriñ li réew mi la mu dem jëli ko indi ko xanaa la mu waroon a def mooy fañ ko wàccee moom Mimi moom Mimi Touré maa ngi tudd turam su bëgguma ko tudd fa fañ wàccee moom fañ ko dafa am ku ñu fa jëlee teg ko fa ku ñu fa jëlee wax naa la ko léegi mooy Aminata Tall kenn déggul ko mosoo dégg rajo wala journal Aminata Tall jóg di xarab président de la République kenn mosu koo dégg ci Sénégal maa ngi ñaan ñu mel noonu jigéen ñi mel noonu Sénégalais yi Sénégalais yi ñu ngi bàyyi xel ci moom bu baax a baax a baax a maa ngi lay gëñal fii ma taxaw ci alxuraan mosuma dugg kër Aminata tu euh, kër Aminata Tall mosuma dugg këram mosuma dugg biiroom billaahi wallaahi tallaahi waaye dëgg dafa neex yàlla dëgg alalu yàlla la gis lu baax ci nit kooku waaye nangu nangu baaxu jàmbur waaye ñu sa mbaax dara bon li ma xam rek mooy di ko xam mooy Mimi Touré moom du du du exemplaire. deuxième fois bi di ñaan président bi ne ko courage boo boo courage bi mu amoon ba Sénégal yi naw ko bu mu ci mës a teggi tànkam bu nekkee dafa def loo xam ne waru ko def nañ ko jaarale ci yoon bu atam boobu nga xam ne fa la béy ko la nga ne moom lay moom la ragal ba ba di mbapp mbapp ci mbedd mi di wax nañ ko audité waxuma ne def na bu defee ñu jaarale ko ci yoon fañ jaaraloon moromam dafa faral jaaram ba ñu tuddee ko Mimi traag. Euh, léegi euh, El Hadj Malick Gueye euh, Lat Mbengue tey li ñu nemmeeku mooy président Macky Sall ci remaniement bi dafa wàcce ñoo xam ne ñoom ñëpp dañu leen deen tuumaal ne dañoo am ay ambition présidentielle mm-hmm. moo xam Aly Ngouille Ndiaye la moo xam Makhtar Cissé euh, moo xam Amadou Ba moo xam Aminata Touré président Macky Sall dafay mel ni dafay tere euh, nit ñi am ambition mais bu paasee loolu tamit mm-hmm. euh, Idrissa Seck mi nga xamante ni tey te ñii ma la limal mm-hmm. ay kàngam lañ ci biir APR. tey président Macky Sall génne leen dem jëli Idrissa Seck jëli Omar Sarr jëli ay ba Diattara ay Ali Saleh Diop est-ce que du Macky Sall dafa bëgg Euh, wala ñu tuddee ko trahison wala dafa trahir ay nitu démbam ngir ngir ñeneen ñoo xamante ni tey lëngoo naa ak ñoom. dégg naa kooku nga xam ne kenn du ko tontu muy Moustapha Diakhaté nga xam ne moom parti mooy rajo yi nga xam ne moom parti mooy rajo yi base mooy rajo yi ak journal yi moom kenn du ko moom def moom kenn du ko def nawle nit boo xam ne day taxawaalu rek. day wax di sànni moom dafa yaakaar ne maanaam nit ñi ci bopp ñu koy déglu président Macky Sall mus Moustapha Diakhaté ah Moustapha Diakhaté xanaa ci nguur Macky Sall man a faloo dafa mën a falu feneen ci beneen nguur dafa a falu ci beneen nguur bu dul bu dul bu dul bu dul euh, nguur Macky Sall mëntu nekk ci lu mu koy faloo ci ban base dañ koy fal ban baas koo xam ne ten sa nga soogu ci réew mi ah du benn almet boo xam ne liggéey nga ko ci Sénégal wala def nga ko ci Sénégal wala njëriñ nga ko ci réew mi kooku nu ko day defee rajo yi moom rajo yi mooy parti journal yi ñooy militant am na nekk ci noonu kenn dégluwul ko parce que delloo ñu groupe ñu njukkal président moom Moustapha Diakhaté xam na may kan moom xam na Malick Guèye mi mooy kan moom xam na koy yàgg na ñëw suma bureau yàgg na ñëw ci man ah moom xam na may kan man man xam naa mooy kan dégg nga de bon lii bëri li ñuy def ci président bi président de bi dëgg la li ko waroon daal def na ko ànd nag ñoom jox na leen ngoro ak teranga ak sutura ormal respecté leen delloo leen cër ñoom ñëpp kenn ku ci nekk président defal na la loo xam ne yow yaa gën a xam ne boo xoolee sa bopp mérite ko yaa gën a xam loolu loolu tax mu def ko mooy bëgg a ànd ak nit bañ bañ baat boobu juddu ngeen teg ko ko muy trahison loolu mu Moussa Diakhaté di ko tuddee ci rajo yi tout est moom mooy trahi moom mooy moom moom moom tur boobu dafa jël tur bi jox ko keneen kenn kenn ku nekk na la nga am ngay mayee ku am lu baax lu baax ngay mayee ku am leneen loolu ngay mayee bu loolu passé président am ambition taxul mu dàq kenn wax naa leen ne la diggante président Macky Sall ak Omar Youm wax naa doomu ndey leen ay xarit diggante Amadou ak président doomu ndey leen duñu ay xarit diggante mu buñ jonn ak président bay faalam la moom la ko ñëpp tuddee ngir nangul gum ko nangul war ngaa xam ne président de la République ku dem bay faal moom Moustapha Diakhaté kay di ko def ministre kay nga xam ne te maanaam nga xam ne kooku wax dëgg yàlla kooku bañul kenn am dara kooku bu sañoon dimbali ñëpp waaye waaye dafa nekk loo xam ne nag nit nag du la mën a ku la abali bët wolof na fa ko neex ngay xool loolu moo fi nekk mënoo nekk ci nguuru jàmbur di ko yàqal mënoo nekk ko Moustapha Diakhaté ay ñii nag classe bee nag moom ñëpp Sénégal yi lan lañ leen tapis rouge ñoom ñëpp comme Amadou Ba ñëpp gërëm nañ ko ci sortie bi ma dégg mu wax dafay assurer président bi gunge ko ku xaar ci mu xarab président doo ko mos a gis loo dégg ci Aliou Ndiaye loo dégg ci Omar Youm loo dégg ci Matar Cissé loolu nag wax dëgg yàlla nit ñu mel noonu la ñu doon xaar ci réew mi. nit ñu mel noonu la ñu doon xaar ci Sénégal nit ñu mel noonu la euh, la la Sénégal yi bëgg waaye ku mel ni ne Aminata Touré nga xam ne dafa yaakaar ne mën na hold up Sénégal yi ci ay théorie dafay nax bopp. d'accord man de euh, li ma jàppee laaj Hadj Malick mooy ku si mel ni ay Amadou Ba ak euh, ay Makhtar Cissé ay euh, maître Omar Youm am na si ñoo xamante ni tey dàq ñu leen ngir dañoo mënut liñ leen dénk wala résultat yi ñu doon xaar dañu ko gisul ñu bari ci Sénégal yi li ñu jàpp amaana mën naa bañ a nekk li ñu jàpp mooy seeni ambition yoo xam ne moom la ñu amee mais mais li ma doon laaj sànq te tontu aussi. xam nga mooy président Macky Sall ci boppam wax dëgg yàlla yi wax naa ci gannaaw ne la euh, euh, doomu aadama gëm yàlla yomb na gëm bés pinc yomb na waaye gëm dogal moo jefe ñoom bi ñu leen di fal 15 millions Sénégal yi ñu ngi toog bon bu ne président Macky Sall tànnee taxul ñu gën Sénégal yooyu toogoon bon mbir mi lu am yéeg rek am na lu am yéeg am tur am na am na sant mooy wàcc yéeg lu tudd sant wàcc àddina moo demee noonu même président Macky Sall ci bos dafiy bàyyee ko keneen ñëw fi ndax mooy itam kenn fi ñëw mu dor toog bon daal dama wax ne nit ki nga xam ne daal jël na pilimam bàyyi ay sénégalais fal la fa fa jël ci biir sénégal yi fal la heure ba mu la waroon a fale la doon defee mun naa am gi euh, bugg na la sensé ci leneen wala feneen defal ko boppam te ba mu ko def tàggul kenn dama ne kii daal li ci Omar Youm def gërëm naa ko li ci euh, Amadou Ba def gërëm naa ko li ci Matar Sy def gërëm naa ko. Serapone nag Mahammed Boun Abdallah Dionne. li ci Aminata Tall def. nga xam dañ la wàccee kenn déggu sa kaddu tey ki gàddu gi suba moom itam ku mel noonu wax dëgg yàlla man ah, amee naa ko mais léegi euh, euh, encore même tuuti ku mel ni Moussa Fall aprodel ah, bu Kaolack bi nga xamee ne dégg na ne Mimi Touré mi mu àndatoon kat moom Mimi Touré moomu dafa jóg pour jéem a yëxanal seesu président bi daf kon fanay daf ko sànni ca àll ba ah, mais mais il faut ñu wax euh, continuer ànd ak président nekk ci nekk ci Alaaji Malick il faut ñu wax ci li nga xamante ni tey mooy sa Seck mi nga xamante ni tey dugg na ci gouvernement bi ñu bari tey dañoo jàpp ne Idrissa Seck li mu def tey euh, maa waxoon waxeet dëgg la ndax moom taxawoon na fi euh, ñu ne sax ci programme am ŋàññi woon na fi au conseil des collectivités territoriales euh, ba pare tamit Idrissa Seck moo fi waxoon ne fas yéenatul muy am ñu koy fal muy am njiit ci politique décret ku dul askanu Sénégal ñu gis ne génn gu ci Idrissa sekk génn ak fukki weer ak juróom yi nga xam ne waxtaan na ko Macky Sall ñenn ñi jàpp ne dañ doon dil ñoom ñaar beneen bi Idrissa sekk fonkul kàddoom ndax nag Idriss si fàttali moom moo doon tuumaal Macky Sall ne Sall nit la koo xamante ni fonkul kàddoom kon jamono ji ñu bari jàpp nañ ne la mu doon tuumaal Sall moom moo nekk ci moom. merci xam nga dafa am lu am euh, Idrissa Seck parti dafa bëgg réew mi bu tuddee parti réewam réew mi ah ku bëgg sa réew nag bu tuddee sa parti réew mi am na yaakaar ne kenn du natable sa bëgg sa réew. bi dul passé ñun ñëpp nañ nangu dëgg te nangu dëgg nañ nangu dëgg dëgg alali yàlla ñii mbapp mbapp fii ñëpp dallu Idriss Seck wi attanuñ ko nañ waxante dëgg gis nga nguur nag ci loxo yàlla nekk moo ko jox ku ko neex ah waaye suñu waxee compétence capacité expérience yàlla def na ko ci nguur soosu looloo tax président Macky Sall di ut ñu mel noonu tànn ko jiwul la dañ ko war a ji jiwu nag du bañ ñu ji la Idriss dafa dem ba gis ne situation réew mi ak àddina bi taxawee na noo xam ne Sénégal a ko war a gënal boppam Sénégal a ko war a gënal parti wax waxeet wax waxeet loolu baat la boo xam ne ay slogan la boo xam ne ñu ngi ko tëgg kël lañu ko tëggal du Ablaye Wade Ablaye Wade xam nga lu deful luy mbaax lépp luy lépp luy sutura lépp luy defar réew lépp lu génnee réew ci ci ci potoxo yóbbu ko ci dimension nationale internationale boo xam ne sénégalais moo ñu entier dama ne ba ñëpp naw sénégalais seen xam-xam ñëpp naw nañ sénégalais ci fi ko Ablaye Wade jaarale ak fi mu ko indi boo seetee amul lépp loo xam ne lu lu loo xam ne ci réew la doon am na Sénégal yoo xam ne bu ñu bu ñuy deetee bu ñu yeewoon tey gis li fa defar sax dañ naan li gént la te terewul ñu ngi ko tuddee wax waxe maanaam sénégalais moo mel noonu waaye nag du Sénégal yëpp it moo noonu dafa am ñoo xam ne waxoon naa la ko ci gannaaw son noonu moom Idrissa Seck dafa am ñoo xam dañ ko bañ président Macky Sall am ñoo xam dañ ko bañ bañ nag boo xasee ba indi ko ci sa diggante ak nit ki wax dëgg yàlla su boobaa dafay ëpp politique yeegul foofu xam nga li problème bi ñi nga xam ne nekk ñu ndongo bëggoon ak sëriñ loolu moo seen problème ñi nga xam ne nekk ñu noonu gis nga man di waxee yow man kenn du ma audité lekk lu ma Sénégal benn un franc CFA lépp loo xam ne moo moo xoolal moo nekk ci sama liggéey maa ko uti ci sama ñaq def ko ci sama dëkk def ko ci sama réew fi may wax ak yow nii di wax ak yow nii mun naa la wax ne la billet Makka yi nga xam ne moom laa yóbbu ci Sénégal rek boo ko doon seet jege na 2 milliards jege na 2 milliards ndax maa ngi ci maa ngi ci 397 personnes à la Mecque jege na 2 milliards amut loo xam ne ci état wu Sénégal laa ko jëlee mbubb mi ma sol état wu Sénégal jëndul ma ko dàll ma sol état wu Sénégal jëndul ma ko dama la bëgg wax ne la man su ma neexee su ma su maanaam critique boobu ñuy def bu nekkoon critique critique rek la maa ko war a mën dàq ndax amu fu ma état jaar pour wax xam man ci benn côté wante attends waaye nag sama réew ma gënal lépp nag su ma réew su ma gisee koo xam ne mu ngi koy doxal li nga ko war doxalee dama koy jàpp assuré ko dimbali ko. Idrissa Seck Idrissa Seck fi ñu ko yóbbu noonu conseil est-ce que jàpp nga ne euh, pour mu bëgg a suqali Sénégal euh, mën nga toog si opposition bi di joxe ay propositions. attends attends dama ne. waaye ma ne euh, bu toog fële yow sa xam-xam noo koy amee naan diw su ma su nii nii la waroon a def nii la waroon a def kay te réew mi toll na ko laaj na ko soxla na ko président Macky Sall soxla na ko président Macky Sall xool lu Sénégal dox loolu moo tax mu jëlee Idriss Seck Idriss Seck xool lu Sénégal dox loolu te président Macky Sall oo ko ma nangu koo xam na gëmoo réew mi bëggoo réew mi yow parti yow sa parti nga bëgg mu réew mi yow bëggoo dara lu dul yàq Idriss Seck yàq président Macky Sall waaye Idi ni waxee rek maa ngi ñaan yàlla dëgëral ànd boobu lim na boo xam ne président daal bi wane na ko euh, li ko tax a jóg mooy seet matière yu baax ci réew mi mu tànn leen pour mu ànd ñaan ne ko mu tax gumba luu ñiy wax ñëpp ma xoolal boo leen togg nañ kilo ceeb sama ni ñu ko jeexal day noon du tuut waaye Sénégal yëpp apprécié nañ ànd bi ànd président président de la République na xam ne indil na Sénégal yi beneen leçon bu bees boo xam ne xam nañ ci politique ni ñu koy defee xam ne réew ko war a saafara président de la République gàcce nga la ma Macky Sall euh, ci këram bu rëy ci këram bu rafet ci dimension bi muy wane heure bu nekk di ñaanal Sénégal yu baax nga xam ne heure bu nekk ñu ngi Sénégal yàlla may leen jàmm euh, jërëjëf El Hadj Malick Gueye euh, seen émission pencum réew mi moom la ñu tey moom mu nekk ancien député libéral nekk bu mujj mooy euh, entrepreneur yi ak jafe-jafe yi nga xamante ni tey euh, ñoom amee nañ ko te bu ñu sàkku bu ñu ñoom ñu sàkku euh, nga yëkkati ci ay kàddu ngir mu mën a saafara ngir ñu jeexal émission bi. waaw li ma xam ne mooy entrepreneur yi comme xam naa ci ñu bëri na xam naa ci ñu baax ñoo xam ne wax dëgg la macha allah ni ñu yiwee lañ ñu saluer ñu bugg seen réew ñoo xam ne heure bu nekk sa gis naa ne sa état bi même bu leen joxee benn marché sa maam jëm ci école wala leneen dañ naan nañu gaaw kat ndeysaan donc sax am na benn bés ma sax ci waxtaan ak kenn mu ne ma même sa liñ ma war a jox yëpp jox guñ ma ko waaye école daa bëgg ubbi te école yooyu mën lañ ko jox moo tax foog ma profité pour mu pare pour xale yi mën a jàng entrepreneur boobu yu mel noonu façon ñu mel noonu wax dëgg la bu ñu nekkee ci jafe-jafe dama ñaan état bi mu gën a bàyyi seen xel ci ñoom parce que entrepreneur yi li nekk seen gannaaw dafa yaatu emploi yi ñuy jël dafa bari dafa yaatu te ñoo ñi nga xam ne ñoom ñooy binaawul ñoom ñooy tabax réew mi euh, ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoom ñooy économie bi réew mi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñi employé yi ñu yore ci réew mi état la waroon mu jël leen bon employé yooyu dañ leen war a sauvegarde sauvegarde bi mooy ñu jàppale euh, entrepreneur yi ba nga xam ne bu nekk dina am crédit nañ leen fay bu nekkee ne euh, seen euh, seen euh, li ñu joxe yeneen i yeneen i bâtiment ci yeneen i sociétés yoo xam ne ay étranger lañ nañ lu jox doomu réew mi ndax lépp des ci réew mi parce que loolu mooy li nga xam ne mooy moom lay ñaan président daal bi te xam naa ne sa xelam ci xam naa ne bëgg-bëgg mu ci waaye nag fas course lu mu daw ñu ba ci ko yar en tout cas maa ngi koy ñaan bàyyi xel ci loolu parce que am nañu ay banque ay bor ah ñu amel banque yi ay bor ñu leen di topp ñii hypothéquer seen kër bugg am benn projet bu marché pour liggéey ci am ci 2 millions 3 millions 4 millions génn am loo fay sa sa employé yi loo caa dese du bari su ko defee léegi dund boobu nga xam ne ñoom moom la ñu dundee sutura boobu moom la Sénégalais yi xam surtout sutura boobu ñoom itam moo taxoon ñu dugg ci liggéey ba ubbi seen entreprise ñu ñaan leen seen entreprise ñu jàppale leen associé leen bañ la bàyyi mu naxasaay jërëjëf eh, El Hadji Malick Gueye Lane Mbengue ñoo ngi lay sant di la gërëm lan ngay tàggoo ci 30 secondes. Euh, tàggoo mooy maa ngi maa ngi maa ngi gërëm président de bi di ko sant bu baax a baax di ko wax ne ko fi mu teg tànkam foofu la di gërëm une fois encore ñi nga xam ne ñoom la président tànn te kenn ñoom président génne ci gouvernement bi bu yàggul te kenn déggul ñu xarab. ku demee ni ki wax dëgg yàlla macha allah Omar Youm ku demee ni ki Ba ku demee ni ki Aliou Ngouye Ndiaye allah ku demee ni ki euh, Matar Cissé ñii daal ay ay exemple loo xam ne nañ xam ne Sénégalais yi naw nañ leen nañ xam ne Sénégalais yi bëgg nañ leen nañ xam ne Sénégalais yi bëgg nañ seen réew joxuñu pour ut boo xam ne wala pour galgal boo xam ne comme ni ko Mimi Touré defee pour jéem a galgal président wala bu yàqal président loolu yëpp wala jéem a mooy sa organe pré teg ko ci yoon boo xam ne ëllëg ki ñëw di remplacer ba faa mën a fekk au lieu que ngay jàpp di jëm ci ay audio di théorie di wax dem. ni nañ seet organe bi organ bi ne ko président de seet seet diggante ak banque yi seet diggante employé yi ñu fa def seet lépp lépp loo xam ne lu ci aju na ko def parce que doomi réew mi nag ñi ci gën a baax ñi ci ëpp traag yooyu ci moom la béy ko woon ci moom la jaaroon lu taxoon mu def ko que président président rek la. président président président rek la ku mu dénk ku ne la nga ko wax ci boîte ba mën na koo gëm bon est nekkul da doon dox ci mayenu Sénégal yi est-ce que nekkul doon dox ci mayenu président bon ñu ngi koy xamal ne ko nag na toog taxaw ne ñun képp koo xam ne muy moom Moustapha Diakhaté ñooñu nga xam ne duñu dara ci réew mi te kenn xamul leen duñu dara te euh, tekkuñ dara ci réew mi nga xam ne yàq jaxase rek moo leen moo seen métier ñun pare nañ pour jàmmarloo ak ñoom ak lu ñu mën a doon nag. jërëjëf jërëjëf euh, El Hadj Malick Guèye Laat Mbengue ancien député libéral nekk conseil spécial Macky Sall ci conseil des collectivités euh, territoriales nekk président mouvement Suxali Sine saalum ànd ak euh, Sénégal moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci micro bi Mamadou Diaw jàll ci wàllu technique bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.